حسبي الله إني أقول إذا ما أنت لازما فسد بالناس حسبي ñun mbokki talibé yi seen talibé taalibe Mahmoudan Mbacke mom Serigne bassir Bassirou ya. del ci wat na ak yeen ci seen jotaay bi ñuy wax al almajlisu sura té ñu am dimanche eh, bu jot bu ñett waxtu ak genn wal bi jotté ci seen radio bi di radio qasida Online di joxtaan ak yeen ci li nga xamanteni noko bok muy lu am solo lo xamanteni ne yéene ji ak pas-pas bi moy jéema wax li nga xamante ne moom defal waaye jéema jéebaane it li nga xamante ne moo ñu yàqal su ko defee rek ñun ñëpp kenn ku ci nekk ñu bàyyi ko xel ku ci dégg loo xamante ne euh, lu dëppoo li ñuy wax la it nga xam ne doomu aadama rek la ku ci déggoo lu juyoog li ñuy wax it nga xam ne doomu aadama rek kay wax te doomu aadama mën naa juum mën naa wax loo xamante ne koy waxe ak ni ku nit ñi dégg bokkut waaye mën naa am sax na ko nit ñi dégg fekk na du rek waaye doomu aadama rek kon yeyoo juum kon mànkite googu nga xamante ne nekk na ci ñun ñu tey wax ak yéen te bëgg ak laabirinte rek ñu ñaan lépp loo xamante ni dégg ngeen ko ci te dëppoo wut ak ko bëgg a waxee na ko nit ñi bëgg wala na ko Sëñ Tuubaa bëgg moo ngi leen ko jóg leen yëpp di leen balaax te di leen balaax di nuyu mboolem auditeurs yi yëpp it nag bàyyiwuñ ñan Serigne Cheikh Bara nekk fële ci Amérique ñu ngi koy nuyu ko siyaare bu baax a baax. waaye di siyaare Serigne Mouride Wade nekk fële ci Portugal Serigne Khadim Faye nekk Ravenna Serigne Mout Diouf ñoom Serigne Ablaye Diop ñoom Serigne Ibrahima Ndiaye waaye ki nekk ci biir machine bi duñ ko fàtte mukk mu Serigne Mouride Mbaye Thiam mi nga xamante ni wax dëgg yàlla moo leen koy defaral ba ngeen mën ko dégg ni ngeen ko soxlawoo Serigne Baye Fall Ndiaye nekk fii ci Touba moom it ñu di ko siyaare bu baax a baax ni ma ko waxee rek. ñun buñ tuddee kenn rek mel na ni jot li nañ ko mboolem auditeurs yëpp soxna maam Boussa Gueye soxna Fatou nekk fële ci Amérique moom itam soxna maam Boussa Gueye nekk fële ci Italie eh, ak mbokk yi nga xamante ni soxna Maymuna nekk fële ci Italie moom itam di ko siyaare ñoom ñëpp bàyyi wuñu kenn ni ñu koy waxee rek suñuy sopp na bàyyi nga xamante ne buñ tuddee ñeen rek mel na ni tudd nañu ci des ñëpp Serigne Moustapha Mbaye Sane di suñu ko lëru di suñu lépp nekk fii ci Touba bu mel ni tey mm, thème bi ñu bëgg a waxtaan ak yéen bu gàtt rek la bokk yi muy euh, ñi nga xamante ne euh, jamono yi ñu toll ñu ngi koy dégg ci média bi naam su fekkente ne waxtaane woon nañ ci lu bare bare waaye bari lu ñuy dégg ci média bi loo xamante ne bis bu nekk rek dafay mel ni man li ma jaaxal man bis bu nekk dafa mel ni daanaka yoonu murid rekk lay dal mais du dal yeneen yoon ci des lu mel noonu nag su amee waris na ko jàngat xool ko ba xam lii lan mooy sabab bi sabab bi ma gis ne kon mooy seen te mu tey bii nga xamante ne dafa mel ni moom lañ leen di indi te sabab bi mooy mën nañ koo tuddee mu mel ni yoonu murit maslaa bi dafa bari maslaa bi dafa bari mu mel ni yoonu murit kersa gi dafa bari dëgg la naam bu fekkente ne dañ koo santaane maslaha baax na kersa baax na waaye maslaha ndax ci loo xamante ne dëppoowul ak ni Serigne Touba bëggee yoon wala kersa ci noo xamante ne dëppoowul ak ni Serigne Touba bëggee ay nitam di doxe ci yoon wi ndax loolu buñ ko toppee ba ci biir du andi ak yàq du andi ak yàq wala sax boobu ñu ne wala sax boobu ñu ne li nga xamante ne moom la fi diw sàngam defoon même su fekkente ne diw sàngam daf koo def ba noppi te muru ne ki suñu gis-gisu léegi jii dëppoo wut ñuy dunde ñu bëgg ko caa bàyyi def ko ay aada yoo xamante ne dañ cay continuer di ca doxale noonu incha allah danañ ci joxe ay exemple yu bare bare ci mu mel ni jamono ji ci biir am na yu lëmbe yoonu murit lu baree bari comme lu mel ni jëmm yoo xamante ne ah, ñi ngi woote ci yoonu murit loo xamee loo xam ne xamee su ko woon ci yoonu murit mu mel ni bokk yi ki ci gën a siiw jëmm yi mën nañuy wax soxna ay Jàllo wante dafay mel ni du soxna ay Jàllo dafay mel ni du soxna Ayda Jàllo rek ci la tàmbalee bokk yi danañ ci indi ay exemple yu baree bari yoo xamante ne yoon wi bari na ay maslaha yoo xamante ne maslaha yi buñ ko seetee ba ci biir la muy jur musiba rek lay indi waxon nako ci ay tem yu bare bari dañ koy wat rek mu melni bokk yi li ñuy tudde par exemple mën nañ ñoo tambalé ci li ñuy tudde seexal seexal ñu gis ne biñ ko toppee ba gëstu ko am ci ay histoire bëgg ci lu leer ba dem ba diko gëstu ñun gisuñu daanaka fo xamantene ne dañuy wax né fa la exister deug deug deug deug deug wala bok biñ demee ba gëstu ko ba gis ci lu wérit ba gis ci lu wérit gis nañ ne sëñ Tuubaa ci boppam xëy na baat bii nu koy tudde tey baat boobu tuddewu ko ko woon tuddewu ko ko woon mooy sëriñ bi ay mag ñoo nekkoon ci keppaaram ay ñu jébbalu ñoo nekkoon ci ay keppaaram bi nu jébbaloo ci sëriñ bi ñëw liggéeyal sëriñ bi sëriñ bi dem ba gis ne ñii kat seeni xel ñii kat seeni xol ñii kat seeni ruux sell na sell goo xamante ne duutuñu jëfandikoo dara ci luy xeetoog luy nuru mooy yàlla wala fo wala dara sëriñ bi ne leen ginnaaw diis dañuy yaatal lislaam ginnaaw dañuy yaatal diine ji kon da ngeen di bàyyeekoo ci jataay bii nga xamante ne mooy jataay bii ngeen toogoon ci man ma yabal leen ngeen dellu ci seeni bokk su ngeen demee ci seeni bokk ñii ma leen defare ngeen defare ñu seen bokk doon kon bu dee baatub seex mën nañ ko ci tuddelu bu dee looloo moom seex am na ndax sëriñ bi defar na ay nit ba ñu sell ci seen jëmm sell ci seen ruux mu dellu leen ne leen dellu leen ci seen i bokk te su ngeen demee ci seen i bokk nii ma leen defare ngeen defare ko seen i bokk kon loolu bokkut ak lii fi am tey mën nañ cee lim ñu baree bari ñoo xamante ne ci kippaaruk Serigne Touba la nekkoon bañ jógee ci kippaaruk Serigne Touba dem nañ toog ci geneen kippaar di fa defar di la nit ñi wante mu mel ni loolu bokk yi bokkul ak méthode bii nu bëgg a doxe tey ndax méthode bii nu bëgg a doxe tey léeg-léeg dangay gis sama moroom moom sëriñ moo xamante ne xëy na ak dundam am na ci lu bari jaar na ci tumuranke jaar na ci lu baree bari yàlla wërsëgal ko kenn koo xamante ne yàlla wërsëgal na ko mu xiir ko ca moom mu xiir ko ci sëriñ boobee tax mu di ko defal di ko jox ay addiya di ko jox alal di ko financé di ko def nangam a nangam finance yooyu mu koy def tax mu maslaxa ca biir ba wax ko ay kàddu yoo xamante ne kàdduy cant kàdduy ngërëm yent xeetu kàddu yu xóot yoo xamante ne dana tax jëmm jooju doon jël alal di ko jox sëriñ boobu sëriñ bi exploité loolu ba tuddee ko ab cheikh wala mu tuddee ko laneen loo xamante ne dana tax jëmm ji su fekkente ne fekkul woon ñu defar ko ba mu defaru defar ak ruuxam defar jëmmam ba mu mën a du mën a jàdd mukk li suñ borom digle dana tax jëmm jooju bu ëllëgee dana woote woo ci yoon wi lu mu wërata woote woo gis nañ na bari na ci am na ci ñu bari ñoo xamante ne tey xeetu maslaha buñ def seen digënté sering, sëriñ wala fuñ jaar ak seen sëriñ ci walu financement aduna ci walu lo xamantene defal nañ ko ab sëriñ taxana seen seenub sëriñ kaf ak ñoom wax leen ay kàddu yo xamne ne yam leen di wax ñoom it nañ ko ba tuddé seen bop ab cheikh wala ñu tuddé seen bop kilifa diiné gu maka mak té te fekk defaraguñ seen ru way fekk na defaraguñ seen jëm ba nga xamantene ni sëriñ touba bëggee ñu defar seen jëm non lañ ko defar seen jëm tey boo demee ci yoon wi bari na ci ay kaa yoo xamante ne kaa yu mel noonu la léegi nag bokk yi mu mel ni loolu ndax suñ ko toppee du dem ba indil yoon wi ay problème yi nga xeeti gi yooyu ñu doon tuddoo seen ruux ak seen jëmm defaroo gut woon dëgg dëgg ni ko suñ tubaa bëgge ba mën a jaar ci tànk yi suñ tubaa bëgg ba bu ëllëgee buñ defaree nit mu jaar ci tànk yi nga xamante ne tànk yooyu la suñ tubaa bëgg ndax ruux yi nga xamante ne Serigne Touba defar na leen ku mel ni maam Cheikh ku mel ni sëñ Mandoumbe ku mel ni ma euh, euh, sëñ Ndam Abdourahmane ku mel ni sëñ Mbacke Bousso jombante nañoo di def loo xamante ne dëppoowul ak li sëñ Touba tere dëppoowul ak li diine tere waaye dëppoowul ak li lislaam tere kon mu mel ni jëmm yi defarooguñ ñàkk a defaraguñ ñàkk a defaru dak kilifa diine wax leen dara ngir maslaa wax leen dara xëy na ngir bëgg lu leen neex tax na mu indi yoon wi ay jafe-jafe ba kenn mënatut a contrôler kenn ndax kon du lu mel noonu bokk yi wëri su ko saafara te teel di ko éliminer mu mel ni gis nañ ci yoo xamante ne eh, eh, tey mën nañ cee joxe benn exemple benn benn benn kilifa ci kilifa yi adduna yi koo xamante ne xëy na suñu borom dénk na ko alal koo xamante ne suñu borom dénk na ko ay dënk na ko dara ci àdduna dañuy gis ne tey dañuy gis kilifa gu mag ci yoonu murit mu jël ay tànkam dem seeti kilifa googu benn mu deele mu jaale ko wala mu am xew àdduna mu dem ca te dañuy gis ne tànk yooyu nga xamante ne kilifa gi jóg na ba cee dem dafay indi ay jafe-jafe boo lëgee ndax lan mooy jafe-jafe yi muy indi boo lëgee dafay mel ni nit kooku nga xamante ne dafa nekk ci lu yàlla bëggul kon kilifa diine yi ñu ngi koy favoriser ndax d'accord nañ moom ci liñ nekk te d'accord guñ d'accord ak moom ci liñ nekk moo tax ñuy jël seen tànk dem di seeti kilifa googu te su ko defee bu ëllëgee bokk yi loolu dafay indi ay musiba yoo xamante ne ah, kenn du ko mën a kenn du ko mën a wax tey mën nañ cee joxe exemple ci soxna si ñu doon wax rek nga xamante ne coow la ci yoonu murid yoo xamante ne kenn mënagu ko régler ba léegi pourtant am na xam nañ ne lim nekk yàlla bëgg ko xam nañ ne lim nekk sëñ Tuubaa bëgg ko xam nañ ne liñ nekk du dëgg ñëpp xam nañ ne du dëgg ba taalibe bi gën a tuuti ci yoon wi xam nañ ne du dëgg mais pourtant am na ay kilifa diine yu mag ci yoon wi yoo xamante ne ñu ngi sol seenu dàll dem di ko seeti di ko téléphoné di maslaa di wax ak moom kon ndax soxna soosu tey bu demee ba gis lu mel noonu du ne li ma nekk dëgg la akay ah, danaan li ma nekk dëgg la ndax bu dul woon dëgg kilifa diine yëpp damay dañ may embargo kenn du am soxla ci man kenn du ma téléphoné kenn du ñëw ci man su ko defee danaa xam ne lii ma nekk du dëgg ma mën cee génn waaye déedéet kilifa diine yi dañ ma ciy favoriser tey dégg naa ci benn kii boo xamante ne eh, benn kii boo xamante ne xëy na dañ koy tudd ci ay promoteur làmb walla yu mel noonu yoo xamante ne dafay tëgg ay làmb kilifa googu dañoo gis ne mu ngi nekk ci liggéey ci liggéey boo xamante ne liggéey bi mu nekk liggéey bu araam la maanaam liggéey boo xamante ne dëppawul ak diine dëppawul ak lislaam liggéey bu araam la boo xamante ne liggéey bi publicité wu na ba ñëpp xam na ci lii lay yëngatu tey maa ngi dégg ñu ne am na kilifa diine yoo xamante ne ñi ngi sol seen i dàll di dem seen kër di ko jaale ji di dem seen kër di ko siyaare ji di dem seen kër di nekk ci moom léegi mu mel ni kooku li muy def l'islam mi ngi koy favoriser wala diine mi ngi koy favoriser wala yoonu rek mi ngi koy favoriser te favoriser googu ñu koy favoriser bu fekkente ne du nit ku jàng diine dafay wax ni lii ma nekk dëgg la dafay wax ni lii ma nekk dëgg la kon am naa sañ-sañu continuer ci li may nekk ndax li may nekk dëgg la ndax su fekkante ne du woon dëgg rek nit ñëpp dañ may embargo ci yu mel ni duñ ma ci seeti mu mel ni bokk yi yooyu waris na ciy def attention waris na ciy def lu lu am solo tey kilifa diine yëpp damay gis ne mm, exemple bi mooy tey bu màggalu Touba jotee gis naa ay télévision gis naa ay rajo yoo xamante ne dañ ciy jóg taxaw ci taxaw gu wér goo xamante ne dañuy yabal seeni ndaw yabal seeni yabal seeni yabal seeni nit ñu dem filmer li ci Touba di ko def en direct di ko won nit ñi di jël seen alal di ko ci financé mais loolu du kaa ci ñun te pourtant am na ay télévision yoonu murit yoo xamante ne tey euh, yu nekk ci internet bi am na ay yeneen télévision yu nekk ci kii bi yoo xamante ne li ñuy def lépp lu dagan la te bu leen yoon wi favoriser woon tey luñ bëgg wane ci média bi mën nañ ko cee wane. mais damay gis ne dafay am beneen télévision boo xamante ne nekkul ci li yàlla bëgg nekkul ci li yonente bi nekk bëgg nekkul ci li Sëñ Tuubaa bëgg te luy ak mbon ci adduna bi ñoom ñoo koy financé luy ak mbon ci adduna bi bokk nañ ci ñi koy financé te seeni jëwriñ sax ñëpp xam nañ leen leneen ñëpp xam nañ leen ne leen bañ juddoo ba léegi ci liggéey bu araam lañ nekk ci liggéey bu daganut lañ nekk yoonu murid yëpp xam nañ ko ba xale bi ci gën a tuuti xam na ko mais dañ leen di favoriser sant leen gërëm leen jox leen ay privilèges jox leen jox leen ay ay sañ-sañ yoo xamante ne yeneen télévision yi sax duñ ko am ci màggalu Tuuba kon mu mel ni jëmm jooju loolu mu doon def ci ak mbon loolu mu doon def ci ak ak araam yoonu murit ni ngi koy dëggal dëggal wër wér won ko ne ko li ngay def dëgg la di la ci encouragé di la ci sant di la ci gërëm dañ cee war a continuer mu mel ni tey ñooñu su fekkonte ne tey kilifa diine yooyu dañ leen a abandonné woon dañ leen a abandonné woon danañ xam ne lañ nekk du dëgg te yoonu murit bëgg ko te du lislaam dëppoowut ak lislaam waaye dañ leen di far sax far far sax gën a favoriser dañuy sol seen i dàll buñ jaalee dañ kilifa yi dañuy sol seen daal dàll buñ amee ay problème dañ leen di woo kon mu mel ni yoon wi maslaha bi ci bi nekk tey su fekkante ne képp koo xamante ne nekkul ci lu dul dëgg xam nga nekk ci lu dul dëgg dafay ñaar xam nga ki publicité wu wane wu par exemple tey jëmm ji nga xamante ne day def musique wala jëmm ji nga xamante ne dafa nekk promoteur làmb wala jëmm ji nga xamante ne eh, dafa nekk ci yeneen yu mel ni yooyu nit ñëpp xam ne kii ci lii la nekk te xam nañ ne lii mu nekk l'islam bëgg xam nañ ne lii mu nekk yoonu sëñ Tuubaa bëggu ko kooku tey bokkul ak ki nga xamante ne xëy na ñëw na jox la addi rek waaye xamoo ci lu nekk dafa làqatu kooku manis na ko masla waaye ki nekk ci lu ne fàng bokk yi kooku tey yoonu murit genn kilifa diine warut woon a sol dàllam dem di ko seeti wala ngay wax ak moom wala ngay nekk ak moom wala nga di ko ci nekk parce que xam nga ne li mu nekk lu arab la kon lu mel ni maslaha yooyu tey dafay indi ay jafe yu baree bari exemple tey am na benn kilifa goo xamante ne tey nee nañ yoof la nekk ab seex la dañ koy wooye ab seex tey bokk yi mu mel ni tey am na am na am na am na am na am na benn côté buñ ko doon buñ ko doon tëjee boo xam ne murid yëpp dañoo waroon a jàpp ni kii taalibe sëñ Tuubaa la bu bëgg sëñ Tuubaa di defal sëñ Tuubaa di yëkkati ci alalam di ko joxe mu yam fa kepp te bañ ko favoriser ci leneen ndax buñ ko favoriser ci leneen dafay dem ba dafay andil boppam ay conséquences yoo xamante ne Bukul ak limi wotew parce que dama dama dafa gawa gis bopam te nek talib seigne touba yakar na lu ko martaba amut Nek talib seigne touba te talib seigne touba biñ lay jiñ di deug ci yow lu ko martaba amut nga yam ci talib kesse waxna ko waxna ko ci emission yu bari bokku yi ana luñ joxone Cheikh ibrahim Fall ce lu ko Sëñ Tuubaa joxoon moo ëpp doole lii ñu jox ñi ñep ndax Cheikh ibrahim Fall masna nek di bajantu wala mu gis doomi seigne touba ba tek ko morom wala mu gis dereti sëñ Tuubaa ba def ko moroom wala mu gis dereti sëñ Tuubaa ba def ko moroom mësta am ci ak dundam mësta jël doomi sëñ Tuubaa teg ko ci wetam mësta jël doomi sëñ Tuubaa def ko moroom mësta jël sëtub def ko moroom taalibe gi mu nekkoon ba sëñ Tuubaa may ko lim ko may taalibe googu mësu caa jóg ba ni mu génne àddina ci loolu la nekk mësu ko weesu mësu ko weesu nga jël maam Thierno Birahim mësu koo weesu mësta def kenn wax naa ko ci émission yu bare bari yoo xamante ne dañ koy fàttali di ko ci wax dem na ba doomam nekk fi doomam mooy sëñ Modou Moustapha di doomi maam Thierno Birahim maam Thierno ko yar maam Thierno ko jàngal mu bokk ak waay juram góor di soxna amintaloo bokk ak maam Thierno Birahim lépp ñu bokk dëkk kokki muy xeetu maam Thierno Birahim maam Thierno Birahim def ci moom lépp jamono yi nga xamante ne dem na ba nekk xalifa sëñ Touba sëriñ Muudu Xabbaan mi nga xamante ne soxna soxna soxna Faati Mbàkke ko jur te mu ak maam Thierno Birahim ndey ak baay muy jarbaatu maam Thierno Birahim sëñ Muudu Xabbaan moom sëñ ma ndumbe sëñ ma nekk xalifa kër sëñ ma ndumbe maam Thierno Birahim nekk Daaru Muxti di seen way jur sëñ Muudu Moustapha nekk xalifa sëñ tuuba sëñ ma ndumbe dem ba feebar jël ndaw ne ko boo demee ci maam Thierno ne ko na ma ñaanal ndax sama yaram dafa naqari mu fekk ko ko so ne ko sëñ Modou Xabbaan nee na nga ñaanal ko ndax aw yaramam dafa wéradi te dafa naqari xolal liko maam Thierno tontu daf ne ko ndax yonne nga Touba sëñ Modou Xabbaan ne ko déedéet bi sama yaram naqaree de sama xel ci yow rek la dem ma yonne ci yow ne ma ñaan sëñ Modou sëñ sëñ maam Thierno Birahim ne ndaw la sëñ Modou Xabbaan yónnee won duma la ñaanal duma la wax dara watal nga delu Touba bo demee nga wax ko sëñ Modou Moustapha ndax ku fi nekkal sëñ Touba yalla rusul la ndaw la wat ci seigne mudu mustapha wax ko ko seigne mudu mustapha ñaanal ko ñu yott ko seigne mudu xabbaan mu naan ko wër nga gis kon pas-pas boobu maam Thierno Birahim mu dem ba domam tok fi mu jangal ko yar ko bok ak ndayam lepp waye dafa jël ndaw la wat ko ci seigne mudu mustapha fi nekkal khalifa seigne Touba nga gis na kon maam Thierno su fekkonte ne dafa warona bajantu wala mu warona woné wane man na woné wane ci lolu seigne dama abdourahman nonu seigne Mbàkke bu so nonu sëñ Mbacke Bousso am na ab néew buñ doon denc Touba bo xam ne ànd naa sëñ Daam Abdourahmane ñu ñew sëñ Modou Moustapha indi otom biñ dikkee ba aksi sëñ Modou Moustapha ne ne auto na sëfóoram demal nga yobbu sëñ Mbacke Bousso ak sëñ Daam abdourahman bo del ci yobbu ndaw li dem ci sëñ Mbacke Bousso ne ko dama bëgg nga yobbu nga eh, sëñ Modou Moustapha nee na la yobbu sa kër mu ne ko demal ci sëñ Daam abdourahman nga yobbu ko ba noppi ndax moy kilifa gi sëñ Touba dénkoon alquran denk ko lépp demal nga yóbbu ko ba noppi mu dem ca sëñ daam sëñ daam ne ko demal yóbbu sëñ Mbàkke bu so ndax moo ma gën a jege sëñ Touba moo ma gën a nangam demal nga yóbbu ko ba noppi ñu di ko werante ñoom ñetti ñëpp sëñ Modou Moustapha dox dem këram sëñ Mbàkke bu so dox dem këram sëñ daam Abdourahmane dox dem këram sofoor bi yóbbuwut kenn këram nga gis warma boobu nga xamante ne li leen sëñ Touba doon jox li muy bari bari ndax ñee sëñ Touba leen defar ñu jur sëñ Modou Moustapha di wayjuram di léppam waaye def guñ def kilifa sëñ Modou Moustapha tax na nanguwuñoo dugg sax ci oto du Modou Moustapha kon nga gis na ñooñu sëñ tubaa daf leen a defaroon ba seen ruu defaru tax ñuy man di defaree kon bokk yi mu mel ni nan siwaat ci li nu sëñ Touba batale taalube bi na nekk taalube bi yi léegi yi bokk yi dañ koy wax waxuñu ko ngir contre taalube yi waxuñu ko ngir dara xam nañ ni taalube sëñ Touba dong lañ fi nekka waaye tey ku fi sëriñam tudde baatub seex wala mu wax la wax ju xaw a xóot sax boo demee boo gisatee mbàkke benn mbàkke mbàkke bu ndaw daanaka boo ko gisatee booy su jotal amul da ngay ñoom ci kaw ci kaw photo yi ci kaw ngay toogandoom xool leen jataay yi ma leen di tey boo demee Masaalikul Jinaan boo demee ci jataay yu bari tey mbàkke mbàkke yi mënu su leen a xàmmee ak taalibe mënu su leen a xàmmee ak taalibe yi bokk yi jataay bi même jataay lay doon boo dikkee ñu ne la sëñ diw a nga nee toog sañ diw fay sañ diw mbay sëñ diw xumba sëñ diw jaañ sëñ diw mbàkke sëñ diw busa sëñ diw nàngam mënatoo xàmmee sax taalibe yi mënatoo xàmmee kenn mënatoo xàmmee kenn bokk yi te lan moo ko waral mooy am am boo am boo xamante ne xëy na favorisé nañ la ci sant guñ la sant wala gërëm gun la gërëm wala place buñ la teg ba tax na xamatoo ne yow ab taalibe nga te ndaxam seex googu ñu lay tudde fekk na taalibe bi sëñ Tuubaa moo ko ëpp martaba seex googu ñu lay tudde taalibe bi sëñ Tuubaa moo ko ëpp daraja moo ko ëpp waaye favoriser guñ la favoriser kaf guñ kaf ak yow euh, place buñ la teg benn place bi mooy tax na léegi nañ dem ci suñ jataay boo demee dematee suñ jataay bokk xàmmatoo kilifa yi ak ñun kilifa ñëpp bokk ab jataay ku am alal ku ne yaag ñoom yenn a bokk ab jataay mu mel ni tey am na lu fi président de la république doon def yoo xamante ne tey yooyu lañ fa waroon a fa tey loolu lañ fa waroon a favoriser Ablaye Wade bi mu fi ñëwee bu gisee sëñ Saliou dafay toog ci ñoom. dafay tok ci souf mais téwul mu nek président de la république jité sénégalais yépp jité 14 millions yépp téwul mu nek noonu téwul mu nek ko tay yow ab milliardaire nga am milliardaire milliards yi nga am tok ci souf ndax day tax day wañi say milliards sukku ci souf ram ndax day wañi say milliards sukku ci souf su jot ndax day wañi say milliards njabootu seigne touba gi nga tag len ci kaw tok ci souf ndax day wañi say milliards ndax day wañi sa daraja bokk yi musta wàññi dara ji Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall diirëb bi mu fi nekk même sëti sëñ Touba yi musta toog a doog ñoom ci kaw même sëti sëñ yi laa benn sëtu sëñ Touba bu Cheikh Ibra mas a toogal ci kaw amut sëtu sëñ Touba yi bu Cheikh Ibra mas a gis jox la benn loxo amut mu mel ni kon kilifa diine yi ñu ngi yàq borom alal yi ñu ngi yàq borom alal yi tey borom alal yi kenn xamatul sa daraja kenn xamutul sa martaba kenn xamutul lu doon parce que ñoom ñëpp yaakaar nañ ni tey ay kilifa la diine lañ ñoom ñëpp yaakaar nañ ni ay kilifa diine lañ kenn xamatu ci fi ngay teg sa tànk kenn xamatu ci ki ngay àndal kenn xamatu ci loo war a wax kenn xamatu ci loo war a def ndax kenn ku ci nekk sa bopp rek nga gis kenn ku ci nekk sa daraja rek nga gis mu mel ni tey bokk yi yooyu ñuy favoriser da ngay nuyu kilifa gi mën na la toogal ci kaw. waaw maam ñu ak lay accueillir du bokk ak ni ñu accueillir dëgg kenn ku nekk ak sa daraja kenn ku nekk ak sa martaba wante yéen itam nga xamante ne ay ay ay ay donga ngeen te taalibe sëñ Tuubaa te bëgg taalibe sëñ Tuubaa gi ñu leen di jiñ di dëgg da ngeen di xam buñ leen buñ leen woyefal ne leen toog ak doo buñ leen woyefal mukk ne leen toog ak sëpp sëñ Tuubaa du dara buñ leen ko woyefal parce que buñ la ko woyefalee lee ba nga toog ak sëtub sëñ Tuubaa ci kawam lal wala nga toog ak moom ci benn sees duñ yem ci fauteuil boobu nga toog ak moom bu ëllëgee dañ lay woyefalal leneen bu ëllëgee ñu woyefalal leneen bu ëllëgee ñu woyefalal leneen da ngay mujj dem ba yow yaakaar ne ni ko fi seex si doon wax dem ba yaakaar ne yaay sëñ Touba wala yaay doomi sëñ Touba wala yaay nangam ak nangam loolu rek ko fi indi kaa yooyu rek ko fi indi kaa yooyu rek moo ko fi indi mooy tax dem nit ki dem ba gis ne man kat léegi maay sëñ Touba maay sëtu sëñ Touba maay nangam ak nangam yooyu yëpp nun noo ko fi kafe ba ko fi bopp. waaye bu fekkonte ne ne woon nañ suñu njaboot bu fekkonte ne kenn ku ci nekk yem nga fa ko war a yem taalibe bi xam ne taalibe bi sëñ Tuubaa képp la ak daraja ju man deex buñ ko dénkoon adduna bépp taalibe bi sëñ Tuubaa képp lay mën a doon te mënta am daraja ju ëpp martaw sëñ Tuubaa am na warma yu nekk ci yoon wi war na warma yi nekk ci yoon wi nag du ma ko xotti mukk du ma ko xotti mukk wante bokk yi mu mel ni mbir yi su fekkente ne tey toogatuñ jàngat ko njuumte yi nekk ci biir dana ëpp ndax kenn ku ci nekk xamatul fu mu teg tànkam kenn kenn ku nekk xamatul te eh, bokk yi li ci yoon wi suñ continuer di ko kafe dana indi ay rëq-rëq te indi na fi sax ay rëq-rëq ndax ñi fi nekk yépp dañ ko kafe ñi fi tuddoo ak ceex ñi fi tuddoo ay soxna yu seex ñi fi tuddee ay kilifa diine ñi fi tuddoo ay nangam yépp dañ ko kafe ba mu dem ba ëpp doole yépp nekkul ne bokk yi li nekkul ne bokk yi li doomi sëñ Tuubaa di kafe mooy li génn ci biti déedéet nekkul ne yow mi nga xamante ne sëriñ Muntaxa Mbàkke ci ak mbaaxam sëriñ Muntaxa ci ak laabireem sëriñ Muntaxa ci ak woyefam sëriñ Muntaxa ci ak fonk addunaam nekkul ne baat yi muy kafe di wax ak yow te léegi ñu di ko arséer di ko génn ci biti nekkul ne baat yooyu mooy kafe baat yooyu mooy baati dëgg yu wér yoo xamante ne dañ ko war a génn ci biti tax nga di ko jëfandikoo ba tax nga yaakaar ne ku bokkati ci suñ Tuubaa yow yaa ko faw wala yaa ko wéete ka yaa ko kaw bokk yi nanu del siwaat doon ay taalibe Sëñ Tuubaa yu dëgg doon ay taalibe Sëñ Tuubaa wér ten xam ne man ak sama moroom a ci yem ay taalibe Sëñ Tuubaa tebal taalibe Sëñ Tuubaa lan bun nu yóbbu ci béréb boo xamante ne béréb ban mu yóbbu àggu fi lii ngeen di xeeb yéen taalibe yi moo leen di andil musiba moo leen di andil musiba mooy gis ku bokk ci Sëñ Tuubaa nga xeeb ko ñu ñoo jox ko benn loxo loolu Cheikh Ibrahima Fall ko fi indi woon nun ñëpp nu di ko def muy yoonu murit woo xamante dafa war a continuer ci yoonu murit nga gis nit ne gone la xeeb ko jox ko benn loxo gis nit ne gone la xeeb ko toogandoog moom ci kaw nga gis nit ne gone la amul dara ku ñàkk la ku tumuranke la tax ne doo ko jox benn cër nga gis nit am mbàkke mbàkke bu ndaw ne xëy na day naan wala day tux wala day taxawaalu nga ne moroom la ba tax day mujj dem sax nga jàppe ne mbàkke mbàkke yu ndaw yépp noonu lañ mel te fekk ñëpp mel ñu noonu bokkuñ amul loo xamante ne lu suñu borom di def la di ko dajale ci ñëpp te fekk na ñëpp am na ci ñuy jub am na ci ñu mel melokaan yu sëñ Tuubaa bëgg am na ci ñoo xam ne façon bi biñ bëgg duñ soppeeku mukk wante yow taalibe bi seytaane mi ngi dikk rek di la gàllankoor di la wax ne la ñëpp a yam ñëpp yam ñëpp yam ba tax na da nga mujj àgg ci place boo xamante ne place bi ngay àgg duutoo xam ban place la bokk yi nan dem ci suñ cérémonie officielle yi nan dem ci suñ cérémonie officielle yi bokk yi tey ki nga xamante ne moo fi ministre de l'intérieur ñëpp dañoo d'accord ne taalibe sëñ Touba la euh, Jolof gii la dëkk day tuddoowoo sëñ Touba gëm sëñ Touba lan mooy marta martabab nga dem rek ne maay ministre de l'intérieur léegi sañ-sañ pouvoir bi ma état bi jox pouvoir bi mooy amatuma sañ-sañu toogal njabootu sëñ Touba ci suuf bokk yi loolu mooy lan loolu mooy lan loolu mooy taalibe gi kon bu buñ demee Touba nuroog waa Touba buñ delsee ci réew mi mel ni Kooba bokk yi pas-pasu taalibe ci ab xol lay nekk nekk ministre de l'intérieur pouvoiru àdduna képp la bu ginnaaw subaa nga ñàkk ko du pouvoir buy continuer mais ak taalibe doo ko ñàkk mukk yow nekk ministre de l'intérieur tax ngay toogoog njabootu sëñ Tuubaa ci kaw bu ëllëgee buñ la follee nekkatoo ministère de l'intérieur nga toogal leen ci suuf loolu mooy lan loolu mooy lan nekk président de la république toogandoog njabootu sëñ Tuubaa ci kaw bu ëllëgee nekkatoo président nga toog ci suuf loolu mooy lan nekk ab milliardaire toogandoog njabootu Sëñ Tuubaa gi ci kaw ëllëg nekkatoo am milliardaire nga toogal nga toog ñoom ci soof loolu mooy lan loolu mooy lan bokk yi taalibe gi du fals taalibe gi du du du du li la njabootu Sëñ Tuubaa gi kàddu yi lay wax ci kaw ngir lan am nga daraja am nga martaba am nga alal joo mën a joxe yaa baax yaa dew sëñ diw nangam ak nangam yooyu taalibe bu ko ci topp da nga yàqule taalibe bu ko ci topp da nga yàqule te yàqule gi nga yàqule doo ko yëg te na taalibe yàqal na taalibe yu bare bari bokk yi sëñ Babacar Kébé lim yoron ci ñu di ko wax njuga lim yoron ci ay milliards yaakaar ba ci gone yi amul ku ko ci yor man maa ngi fàttaliku am na ngan gum defoon daaru moxti fii yoo xam ne gane si sëñ mu daaw balla keroog bi muy ñëw fii ña bokk nekk ca waañ ba moo financé ngan nga bokk yi am milliardaire la ñëw di gane si sëñ mu daaw balla financé wante teewul ma nga ca waañ wa di tibbaate di dënale di yanu ci bool yi di séddale di ko jox gan ba gan ñi bu bu njuga kebe yanoo ab bool dañuy laaj naan kii kan la ñu ne ko kii de mooy ki ñuy ganale waaye bokk yi ni ma ko waxee léegi maam Cheikh Ibrahima Fall yaakaar na lim am ci yoonu murit taalibe bu ko ci am néew na wante ndax mas ngeen a dégg ñu ne la mas naa toogandoog sëñ wu cib lal wala sëñ Abdou Khadir wala sëñ wala sëñ Abdou Lahat wala sëñ Modou Moustapha wala nangam mosoo ko dégg ndax mas naa toogandoog ci musoo ko dégg mas na ndax mas na leen a jox benn loxo mosoo ko dégg mam nubirai birahim ñoom sëñ mandumbe ñom señ mbacke bu so señ daam abdourahmane léegi tay so amé alal rek photo ya yi njabootu señ tubaa gi tok ya ci toogandoog ñom njabootu señ tubaa gi sax di ay goné ñom ñolay togal ci suuf yow nga tok ci photo yi tim leen di wax bokk yi lolu moy lan bokk yi lolu moy lan nan del wat ndax taalibu señ tuba mo upp daraja taalibu señ tuba mo upp maqama lu bare bari lu nit di yut bari waana ku ñuy tuddé ab cheikh bari waa na ku ñuy tudde walliyu bari waa na ku ñuy tudde nangam te taalibu sëñ tubaa ko ëpp daraja fop moo ko ëpp martaja fop wante ci kaw taalibu sëñ tubaa bi ban melokaan lay mel ban comportement lay mel ban façon lay mel bokk yi mu mel ni bokk yi seen jataay bii di Al si suuraa yu mel ni lay indi bëgg nu waxtaane ko kenn ku ci nekk xamaat sa bopp bu côté taalibe yi foofu jeexee ci gis seen bopp foofu côté sëriñ si sëriñ si ñoo ngi ñaan maslaha bi da wàññeeku kersa dina wàññeeku li ngeen di wax taalibe yi na ngeen ko xam ndax bari bariwaana baat bu ngeen di wax di ci kaf ab taalibe yàqoon na ci bariwaana ab kaf bu ngeen di wax taalibe yàqoon na ci tey mooy lu mel nii ñuy tuumaal saali wu rek sëñ Saaliwu nee na maay man maay yow sëñ Saaliwu nee na maay man maay yow ba tax na doomu aadama bi duutu xam fi muy teg tànkam duutu xam nangam dem na ba tey kooko jóge na fi nee na soxnaam maay man maay yow soxna si ne man maay man maay moom dem ba bëgg a woote woo ak sëriñ Touba dem ba bëgg woote woo loo xamante ne tey lëjal na réew mi te fi mu toll nii nus di def ba lijjanti ko parce que am nga ay nit ñu la gëm di topp ci yow di la raabal soo waxee ñu def soo teree ñu bàyyi. am na ci ñeneen ñu baree baree bari ñoo xamante ne ñi ngi ci yoon wi te dara waralu ko lu dul kas maslaha wala ak mbaax gu ëpp moo koy taalibe yi nañ yem ci rolu taalibe sëriñ si yem ci rolu taalibe te ay responsabilité lay yi de. ay responsabilité lay bokk yi nga jox jëmm joo xamante ne jëmm ji ngay jox jox leen mbooloo jox leen ñu topp ci ginnaaw te defaru wuñ te duñ defaru ba mukk nga jox leen ay mbooloo ñu topp ci ginnaawam ñu ànd ñoom te mooy la Sëñ Tuubaa waxoon ci njaareem benn nit ñëw fa boo xamante ne kilifa la ànd ak mbooloom rëg-rëg ji dëkk bi xumb lool Sëñ Tuubaa woote ne loolu mu doon ñu ne ko diwa mu ne ku mu àndal ñu ne mbooloo sëñ bi ne teg ba ci suba sa mu woolu ne ko diw diw diw ba muy ñetti yoon mu ne ko damaa yaakaaroon ne dama laa jox mbooloo mi boole laak ñoom ngir nga wommat leen ba bu ëllëgee nga ànd ak ñoom tàbbal leen àjjana yàlla yërëm leen loolu laa yaakaaroon ne moom ngay def loo mbooloo mi teg leen ci siraatal mustaqim ndekete yow ci sa bopp da jël sa bopp def sa bopp mattum sawara jël mbooloo mi ma boo def leen mattum sawara mbokk yi loolu na ko kenn ku nekk daw te sëñ Tuubaa wax na ko fii nit njëriñ leetar yaa ngi fii yor yo xamantene ne ñewé daru daaru lettre yaangi fi ñu yor turu diwa nga fa te mi ngi fi rëg-rëgee ak mbolom ba légui mi ngi fi rëg-rëgi ak mbolom ba légui bokk yi nan bayyi waxal liggéeyu serigne touba bi te bañ ko foyé bañ ko yaq pomi ëpp na pomi ëpp na légui ku am xaaliss rek songu khalifa général de mouride su ko defee ñu kaf ak yow wax la genn kaddu nga joggé fa né ab cheikh la joggé fa di woté mbolo nañ xam fi ñuy tek suñ tank nañ xam fi ñuy tek suñ tank beneen bi ci des bokk yi kilifa diine yi nañ arrêté nit ñi nañ arrêté nit ñi arrêté nit ñi weesuwul maslaha bi ñu bàyyi ko maslaha bi mooy lan xam nga ne diw mi lim nekk yàlla bëgg ko yonent bi bëgg ko sëñ Tuuba bëgg ko lim nekk lu araam la yow kilifa diine gi xamal ko ne ko li nga nekk lu araam la te bu ci tudd sëñ Tuuba su ko defee yëf yi fa lay yem yëf yi fa lay bokk yi amul mbas la amul mbas la tey soxna si Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou yal na yàlla guddal aw fanam ci tekkam ci dalam ci aw melokaanam ak njabootu Serigne Saliou gépp tey Serigne Mountakha nii mu mel nangam nangam waaye béy na rek béy na rek amul gise tey amul gise suba amul wax lii tey amul wax ni suba soxna Aida Diallo li nga nekk sëñ Touba bëgg ko yàlla bëgg ko yonent bi bëgg ko yoonu lislaam bëgg ko yoonu murit bëgg ko na fi tey. un point un trait na jeex tak begitu déggatuloo mu mel non, su la demee ba mu wóor la ne lii ngay def munoo ko bàyyi bul tuddooti sëñ Touba di ko woote xam nga dafa am communication yoo xam ne bokk yi dafa leer nag wax dëgg yàlla dafa am communication yoo xam ne dafa leer nañ te soo communiquer ak nit ki doo ca waxaat tey bu subaa nga waxaat te bu ginnaaw subaa nga waxaat te soxna Aida Diallo lii nga nekk yàlla bëgg ko yonente bi bëgg ko sëñ Touba bëgg ko yoonu du na fi yam su fekkente ne dem nga ba mu wóor la ne munoo ko bàyyi yoon wi amul masla amul dara turu sëñ Touba moom bu ko ci demal woote woo sa mbooloo ni ko ñaleen di defe un point bokk yi fa lay yem fa lay yem kilifa ga ko jiitu woon kilifaam def noonu kilifa yi fi nekk tey kilifaam def noonu mais am na yoo xamante ne tey ñi ngi koy woote ci yoonu murit bokk yi bu leen dem xam fu muy yem parce que am na ay seex yu ñu fi formé yoo xam ne ginnaaw sëñ Tuubaa la am na ay seex yuñ fi forme yoo xam ne ginnaaw sëñ Tuubaa lañ ko fi formé te ñoo ñooñu tey kooku tey mën naa maslaa xam ni muy doxale ba jàll waaye tey suba mën naa faatu doomam toog fi comme nii ko sëriñ bii defee bu fi doomam too toogee tey mën naa wax ay njaaxum wala mu wax ay toj-toj yoo xam ne bokkul ak doon wax bokkul ak la ko kilifa ko doon kafe kon bokk yi nañ ko nañ nañ ko nañ ko bàyyi beneen bi ci des yoonu murit manqué wu dara boroom alal yi ñuy favoriser nañ leen def ñu di ay taalibe képp te bañ leen a dig laneen lu bokkut ak taalibe buñ leen dig laneen lu bokkut ak taalibe bari na fi ñuñ fiy digg yoo xamante ne ay nit a ngi leen nañ bàyyi nit ñi leen di toppal ci seen ginnaaw nit yi ñu leen di toppal seen ginnaaw nañ leen xamal ne leen nit ñi topp ci seen ginnaaw dañoo topp ci seen ginnaaw ngir àndandoog yéen ngir liggéeyal Sëñ Tuubaa bu ngeen wootee ñu ñëw ñu nekk ab group nekk lu mel ni association wala nekk lu mel ni daayira mais du ngeen seeni kilifa du ngeen seeni kilifa bokk yi parce que sëriñ si nekk ci yoonu murit ñu def leen ay seex yépp ñi ñu àndal seeni taalibe lañ leen di wooye dañoo nekk seeni taalibe di ay nit di jébbalu ci ñoom ay nit ay àndandoog ñoom di jébbalu ci ñoom jébbalu googu ñuy jébbalu ci ñoom ñooy tax bu ëllëgee buñ beroo woote leen seen taalibe yooyu topp leen kon bokk yi yoon wi du kaf yoon wi du dara yoon wi lu dul tege ci ak njub yoon wi lu dul tege ci siraatul mustaqima yoon wi lu dul tege ci dëgg yoon wi lu dul tege ci li sëñ doon woote te li sëñ doon woote ñun ñëpp xam nañ ko lii fi nekk léegi nag ñu di ko maslaa bokkul ci yoonu murid ku ko ñemee wax ak ku ko ñemewut wax bokkul ci yoonu murid yoonu murid milliardaire yi bokkuñu ci doon ab milliardaire ab seex am ay taalibe bokkul ci yoonu murid ñàkk tax doo doon ab seex tax doo doon am murit bu ay taalu bi di topp ci yow bokkut ci yoonu murit yoonu murit li ci bokk mooy kuñ defar ba nga defaru ba mu wër la ne ku jaar ci yow du yàqu ñu defar la ngay defare looloo bokk ci yoonu murit yoonu murit du alal du ñàkk yoon loolu du yoonu murit te léegi nag bëgg nañoo favoriser ci yëf yi yoonu murit loo xamante ne mooy dañ lay favoriser favoriser goo xam ne boo amee alal rek màggal jot nga ramasser ay nag yu bari ramasser ceeb bu bari ramasser diwlin ju bari ramasser suukar ju bari soo dikkee ñu ne la yow la déedéet du yow de loo fi def rek nit def na lu ko ëpp ci yoonu murit te teewul Sëñ Tuubaa def la nga di taalube bu yem ci taalube ket bokk yi nan yem ci ak taalube woote woo ak taalube dal ci ak taalube te nekk li ci Sëñ Tuubaa bëgg te bàyyi li sëriñ bi bëggut te xam ne du nu amal njariñ du nu yóbbu fenn ndax am na ci lu bari loo xamante ne bokk yi buñ ko tegee rek mu ëndal ñu ngànte buñ ko tegee rek mu ëndal ñu ngànte kon ñu ngi ñaan mboolem kilifa diini yëpp tey dégg suñu jotaay bi ngeen di ànd ak seen mbokkum taalibe di moo dan mbakke moom Serigne Bassirou Anta Niang nu yaraat nit ñi tegaat leen ci ak jub tegaat leen ci siraatul mustaqim waaye lii xew ci yoonu mu murit ñu ngi koy jàmbat ci soxna si tey te yeneen a ngi fii yoo xamante ne moo gën a garaaw soxna si fop te kenn ñemewu ko tudd te ñun ñëpp xam nañ ne bokk ci yoonu murit ñun ñëpp a ko xam kilifa diine yëpp a ko xam yëpp ko xam xam nañ ne bokkul ci yoonu murit te ñi koy favoriser te favoriser gi ñu koy favoriser ëllëg gone dana dikk fooyee ko saboote yoonu murit te bu boobaa kenn du ko a dara te bari na fi muy boroom alal yi ñiy topp seen bëgg-bëgg ñiy woote lu leen neex boo demee ci biir yoonu murit sëñ bi maanaam li xew léegi kenn xamatul lu mu doon yàlla yàlla def lu la neex nit ñi jaamootuñ yàlla nit ñi toppatuñ ci yàlla bëgg nit ñi jaamootuñ yàlla toppatuñ ci li yàlla bëgg war tuñ kilifa yi respecté tuñ ñi ñu war a respecté léegi borom alal moo gën ci yoonu murit yooyu yëpp bokk yi bokkul woon ci yoonu murit te dañ koo war a arrêté parce que buñ ko arrêté wul dana andil ngaañte yoonu murit te bu boobaa kenn du ko mën a saafara mu mel ni seen jetaay bii di Al Majlizou Zoura lii la doon indi tey di ngeen ànd ko seen mbokkum taalibe Mahmoudan Mbacke moom Serigne Bassirou Anta Niang di gërëm Serigne Modou Mbaye mi nga xamante ne mooy nek ci walu xarale gi di len ko meuna jotale ba ngeen man ko jot di sant di gëreem di ak yeen ci seen jotaay bi fi nga xamantene moy am dimanche bu jot bu ñetti waxtoo genn walu joté ci seen radio bi di radio xassida won lay di gëreem mbolem auditeur yëpp ni ñu ko waxee won rek lu ci nek ñoom te ñu bal ñuko lu ci nek ak njubit ñu xamantene ne rek lañ ci jull di wax salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa أكرم أرادي عليهم كالسماوات فوق على سادات الأموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات فوق على

بميلاد